salaamaaleykum mbokk yi ñuy teewlu ci Kaolack Info TV comme ni ñu koy defee saa su ne rek rek di leen bu baax a baax ci ànd bi nga xam ne ngeen koy ànd ak ñun saa su ne nag ñu amaat keneen ci plateau bi ki nga xamante ne moo di Aliou Lo kàddu askan wi. moom lañu fas kenn waxtaanee tey ak li nga xamante ne moom moo di jafe-jafe kaw la waaye tamit waxtaan ci wàllu politique waaye tamit wax tamit ay solution yoo xamante ni dinañ ko def ba li nga xamante ne moo di nag euh, Kaolack daal di mën a suqaliku jëm ci kanam moom Aliou Lo mi ngi ci suñu nag fi nga xam ne moo di studio bi Aliou ñu ngi lay dalal jàmm di la wax nga bàyyi yi nga nuyoo ñi nga xam ne ñoo di askan wi euh, teewlu Kaolack Info TV onze billahi mina seytaani rajim bisimilah rahmaani rahim Aliou Lo kaddu askan bi ndënkaane mboosa ko mu jigéen suñu maam ñu sant yàlla bu baax di suñu bi julli bu amul àpp sant suñu waajur sant sama sëriñ seexal islaam di ñaan suñu xalifa bi yal na yàlla guddal fanam di ko ndokkeel ci nomination bu ko buñ ko buñ ko buñ ko fal di ñaan yàlla réew mi yal na def jàmm di gërëm di sant tamit suñu kilifa diine yi ne ci dëkk bi mu lew nañu seen Madina Baye Touba Ndorong kaneen demeen di gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm tamit ñi nga xam ne di sant di nuyu sama waa koñ di nuyu tamit Kaolack Info leen nuyu bu baax a baax di nuyu dëkk bi yëpp nag. ayuloo kàddu askan wi ñii naan activiste nga ñii ne du activiste. Mhm. ñii ne saa boo ko déggee mu wax rek day maanaam ŋàññi. Mhm. Euh, ban lañ ci mën a jàpp ne moom moom ngay doxal activist la wala koo xamante nii rek daf fi teewal askan bi ah non man xam nga loolu ku nekk ak sa gis-gis mhm. man Aliou ku ne xam ne ne man. man lu ma fi mooy askan bi xeexal dëkk bi taxawu dëkk bi dimbali dëkk bi parce que Kaolack moo ñu ñoom nekk ay jeunes taxaw pour dimbali dëkk bi. Hmm. di nga dëkk interpellation bu nekk ñi gisee nii ñi waxee nii parce que doomu aadama yi ñoo mel noonu. xam nga ku nekk ak ni ngay gisee ku nekk ak ni ngay waxee. Hmm. waaye loolu moom àddina na nga ko fekk fii nañ ko bàyyi. waaye xam naa ne téeméeri nit ñoo jël. Hmm. fukk ñoo si ngàññ waaye mun nañ wax ne ñu si des ñëpp ñoom nangul leen parce que xam nañ ne képp koo xam ne Kaolack ñor na yow di am cofeel si jëmm ji toog parce que ñun du tey du démb du barki démb depuis bu ñu xamale ko ba léegi ñoo yàgg xeexal dëkk bi te suñ kon ñu ko tàmbalee fu ñu dëkk commencé fa di fa yëngu si développement durable si yu bëri doo ko génn tas mbir mi yàlla daf ñu dugg si politique yàlla daf ñu dugg si ay yeneen structure yeneen ak yeneen te lépp loo xam ne ko si nekk rek mu njëriñu dëkk bi la njëriñu askan bi waaye nag àdduna moo demee noonu ñii dinañ waxee fii ñuy bañ ñi nangu waaye loolu moom àdduna ñoo ànd Kaolack Ndangaan la dëkk. Mhm. jamono ji euh, nan nga gisee dëkk bi doxalinam. waaw dox dëkk bi moom nu ma ko gisee wax dëgg neex yàlla. Mhm. mooy ab ab coppite boo xam ne gis nañ tàmbali na am. Mhm. parce que Kaolack si ginnaaw tuuti si at yu si ginnaaw gis nañ ne dëkk bi wax dëgg neex yàlla maral na dëkk bi bekkoor na dëkk bi tumuranke na dëkk bi tabax nen mu nekk dëkk boo xam ne Carrefour la nekk dëkk bu màgg. dëkk Cheikh al Islam Kaolack économiquement di dugal lu ne Kaolack nekk dëkk bu mag Sénégal wër këmu yëpp ñu gën fi dellu ginnaaw gën fi dellu ginnaaw Kaolack avancé wut Kaolack amul dara port bi doxul Kaolack amul usine xëy ndaw yi lu fi gën a am doole mooy jawal dawal Jakarta Kaolack tilim lëndëm ñu gis ne am na coppite boo xam ne commencé na dugg te coppite boobu mooy ki nga xam ne Kaolack waaye amoon nañ si moom yaakaar indi ko. muy président Serigne boobu ñu gis ni am na ay coppite yoo xam ne commencé na am si dëkk bi ku ko ku xam Kaolack démb gis tey Kaolack nu mu demee nga xam ne tey coppite commencé na am loolu lañ gis. waaw mais euh, jafe-jafe yaa ngi koy tudd sànq lan la jàpp ne moo ko indi Kaolack. jafe-jafe yi lu ko indi mooy yi nga xam ne tey dañoo yàq dëkk bi. Hmm. nga xam ne Kaolack ñooru leen. Hmm. seen intérêt personnel moo leen ñor suñu demee si nga xam ne mooy njiiti réew mi wala ñoom fu duñ fa nekkee pour kaasal dëkk bi. seen député yëpp.

xoolum tali bu bon xoolul éducation bu dox bu doxul xoolul dëkk bi santé bu doxul xoolul environnement dëkk bi ndax dëkk bi am na tali bu baax xoolul dara lu dul ay am ay leaders yu incompétent taxaw jiital seen bopp fàtte dëkk bi loolu yëpp suñu problème yi kaw la fa at si ginnaaw yëpp loolu moo faral. waaw euh, kon donc su ma la déggee day mel ne maanaam ñi nga xam ne ñoom ñoo yoroon suñu euh, kii bi suñu bopp mairie bi wala tamit koo ko ne dafa am lu waaw non du question bopp mairie bi kese sax xam nga tey dama koy wax sa ay discours ma ne leen. te Mariama Sarr hmm. parce que tey ñu fekk nañ Kaolack démb tuuti. nekkoon nañ fi ak ay Madiana nekkoon nañ fi ay xalifa nekkoon nañ fi ay ñeneen ak ñeneen waaye Mariama bu mu ñëwee gis nañ ne am na tuuti góorgóorlu boo xam ne def na ko. Hmm. parce que am na lu muy bañ Kaolack bu njëkk soo duggoon ci dëkk bi calaax mbalit lay bañ si soxla bu ne nag. Maria bu ñëw nag am ay góorgóorlu am ay yoo xam ne sax si nguuram la amee Promoville ñëw mu indi ay mu indi ay ci pavage ñëw indi ay tali yoo xam ne ñëw na si nguuram muy góorlu si yenn inondation yi góor na loolu noonu tey moom sax mën nay wax ne am na ay gestes yoo xam ne si à sali yoo xam ne def na ko waaye Kaolack waroon si si biir loolu président président yi nga xam ne moo fi nekk wàccoon na Kaolack ñaata premier ministre ñaata DG ay ay ay ndomb tànk yu nekk ñoom ñëpp ñu jiital seen bopp fàtte Kaolack kon loolu ça veut dire que ñun mën nañu war a sanctionné dafa ñu nekk di taxaw di nax nax askan bi di leen nax di leen nax loolu di naxee mooy ay wax yu gunóor yoo xam ne kenn xamul lan ay financement yoo xam ne amul fenn ay ceeb ay diwlin di leen ñëw di leen yóbbu ay terrain déggoo di leen yóbbu ay ay chambre de di leen tajale di leen utiliser renseignements yooyu di bind président di leen jël di ceebal seen seen i poche Kaolack waaye di gën a sonn soo xoolee local yi dama naan local yi passé nii si si la Kaolack doo ko am indépendance parce que soo xoolee soo xoolee local ñoom ñaata ñaata say say soo xoolee coalition benn bokk yaakaar boobu noonu ponkal yëpp fa la nekkoon ñu ñuy ooy ay ponkal. parce que Kaolack waaye dañoo réeroon. Mm. ñu ñuy ooy ay ponkal ñoom ñoo fa nekkoon ñoom ñëpp muy Nafissatou Awa Guèye Mimi Touré Souleymane Ndéné am ay sëriñ yu leen ngemb am ay kilifa yu leen ngemb yu dul jeex Kaolack waaye ne leen dafa doy. Mm-hmm. ñun ñun kat wax dëgg neex yàlla yeewu nañ sëllu neen Kaolack waaye jël leen wan leen ginnaaw votel tey jii nii tey ku waxoon ne président Serigne Mboup tey jii local yi nii dina gagné largement nii 35 pour cent doo ko sa gëm. parce que Kaolack waaye ñoo commencé yow ndax ñu leen ndax ñu xam ne dootu dem loolu loolu tey jii nii tey foofu la Kaolack toll. Mmh. wax nga ko sànq sëriñ Mboup moom moo gagné local yi largement sax. Mmh. ndax euh, waaw dafa dafa laminé mën nañu wax Benno Bokk Yaakaar te kenn yaakaaroo ko woon. Mmh. ci bi ñuy bi ñuy tàmbali. mu mel ne nguuru euh, sëriñ boobu mhm. mu tàmbali rek coow li bari mhm. ndax loolu noonu mën na am yaakaar ci fitiru kaw la xam nga wax dëgg neex yàlla dafa am loo xam ne tey dafa yenwul maanaam hmm. parce que tey yow mënuñ jóge si bekkoon bu nekkoon kaw la sonn bu nekkoon hmm. ñu bëgg coppite ñi nga gis ñuy yuuxu ñëpp sëriñ boobu lii sëriñ boobu laa nangam ak sàngam ñooñu kaw la ñorul tey su leen Kaolack ñoroon koo xam ne salaamaaleykum maaleykum salaam sa waxaguñ ko nga bëgg ko naan ñëpp kon ça veut dire que la ñor ak sa bopp sëriñ bu ko pour mu defal nit ñi. sëriñ bu mu defal Kaolack tey jii ku sa poche liggéey yi sa bopp yàlla mooy maye sëriñ bu yàllaa fal ñun lu soxla mooy. président sëriñ bu ànd nañ ak moom yàlla dimbali ko may ko ndam luñ soxla mooy lu ñuy wax lu ñu sëriñ bu di xaas ñun moo ñu soññ ko. mu mu créé ay emploi yoo xam ne ndaw ñi dina am xëy si dëkk bi sëriñ boobu tey jii cali secondaire yi nekk Kaolack na xam ne tey si événement amee Kaolack day am embouteillage mu defar ay cali secondaire yoo xam ne lëkkaloo ak président am ay projet yoo xam ne dina ko am ñu ñëw defal ko ay kilométrage par tali yu ne mel noonu te Kaolack lëndëm bu lëndëm ñu fexe yenn zone yi yenn zone yi nga xam ne dafa lëndëm insécurité bi foofu wóoru sax taal lamp yi dindi mbalit mi indi ay affaires yoo xam ne ay coppite yoo xam ne dinañ wax ne lii lii la kaw la doon xaar si président Serigne Mboup waaye président Serigne Mboup xaawuñ si moom tey jii nii mu gañee ay nit ñu àndaloon moom wala ay nangam ak sangam taxaw naan non président Serigne Mboup faaleetuma nangam ak sangam ay ñii di wax gauche ñii di wax droite loolu nag kaw la loolu la dépassé. mais tey tey may ma rek soo xoolee tey nga xam kaw la démb nga xool tey nga xool réalisation yu président Serigne Mboup def si diir bu ndaw. nga xam ne tey Kaolack waaye obli dañoo am obligation pour ñaanal ko ñëm ku ñi nga xam ne ay opposant la ñu àndoon ci ci jonganteel sax war nañ ko ñaanal parce que suñ ko ñaanalee président Serigne Mboup gagné wu si Kaolack moo si gagné. parce que président Serigne Mboup yàlla màggal na ko mu juddu mu dem jàngi bu mu jàngi dee ñëw ba bàyyi gën a àdduna mu uuf ay rakam tey jii nii liggéey ba yàlla may ko xaalis boo xam ne xaalis bu am mun a amee dépense. Kaolack waaye si boppam ñoo sonn du Serigne Mboup a sonn suñ ko falee nag dañ koy jàppale ñaanal ko dimbale ko ñàkk ko. mu am réussite waaye suñ nekk ay di ko bëgg a jaxase ak président Macky Sall di du ko def ko comme opposant nangam ak sangam kon Kaolack moo siy perte sooy xoolee bu njëkk marché marché Kaolack soo xoolee événement su amee tabaski wala Korité benn mètre mënoo ko dox waa ko sax doo ko mën a def nga gis nga gis bu mu ñëwee lii Korité bi nga xam premier Korité am nga gis mu organiser marché bi nga gis nga gis nga gis assainissement bu mu def si biir marché bi ñaata tonne mbalit la fa génnee nga dem daaw salaam soo fa soo fa soo duggoon sa yaram dafay daw si mbalit ne ndax lii ay doomi adama mun nañ dëkk fii nga dem gi ancienne gouvernance nga xool présidence liñ boobu coppite bu mu fa nga nga kaniwoo yi ak ay yoo xam ne commencé na góorgóorlu di ko def tey man mi di wax ak yow kàddu askan bi man dama yor comme bu nekk fa représentant boo xam ne ñoom ñoo fa nekk samay ay bi yoo xam ne ñoo ma fay représenté co si groupe whatsapp bi mhm. suñ ko dugalee si groupe whatsapp bi dañ koy envoyé président sëriñ bi directement mhm. mu yebal ñu su ñu war a yebal ñu dem foofu noonu tey am na mbalit yu bëri yoo xam bu ñu ma ko envoyé su ma la walaatee liggéey bu ñu fa liggéey da nga naa ma déedéet te bu njëkk yooyu yooyu yëpp amuñ ko accès boobu amuñ ko woon mu nga xam ñu commencé di góorgóorlu pour bëgg a dëkk bi waaye Kaolack si boppam ñoo bëgg dara te ñooñu ñuy ñuy yàq ñu ndaw nen population bi ñu ngi bàyyi seen xel dofuñu de ñu ndaw ñoo xam ne politique politicien moo leen intéressé ak yàq ñoom rek ñoo taxaw tey jii nii di naan ñëpp di wax góor si wax droit waaye moom mu ngi góorgóorlu mu ngi liggéey ñu gis na nga am ak link lool Baye Ciss mhm. euh, te ku ne Baye Ciss wax président Macky Sall mhm. donc kon lan moo la poussé woon pour nga jàppale Serigne Mbu waaw man lu ma jàppale Serigne Mbu Kaolack hmm. xam nga Baye Ciss hmm. moom président Macky Sall ay xarit hmm. moom ay waaye ñun loolu moom moom mag man Baye Ciss lu tax ma ànd ak moom mooy mooy bëggu dëkk bi parce que Kaolack su borom barke yu bëri ma defoon ni Baye Ciss mun na wax ne Kaolack duñu am problème xëy ndaw yi tey soo demee au waaw lu fa Baye Ciss liggéey wax dëgg neex yàlla sa yaram dafay taw parce que bu muy jël loolu am na ñu taxaw na ko président Baye Ciss que yow xalaat nga tëddal nga xalaataat lii nga xam ne àll fay fay bi nga xam ne tey jii nii jinne yi ñoo fi def seeni i de tey nga bëgg ko taxaw ne ñii da si bëgg a dugg ah président xoolaatal li ngay def muy leen wax dëgg neex yàlla man man benn yoon la nit di jommi te man bàyyi jommal na ma. Hmm. président Baye Ciss dafa am lu nit ñi di fàtte. Hmm. ne baayam moo nekkoon koo xam ne tey jii nii nekk taalibe Baye bu mag. Hmm. am na mag ñu nettali ne président Baye Ciss su yaayam fóotoon ay yére Baye Baye Niass da nga koy jël di ko sangee su Baye su Baye Niass lekkee su des mu koy lekk. bu mu ñëwee di ko jaxase ak présent Macky Sall ñoom ñëpp tey am nañ gàcce ñii ñu ngi si problème ñuy jongante nañ daanu ñi nekk nañ si ay difficulté moom tey soo demee li nga xam ne moom la moom moom moo commencé woon ñu naan du yegg tey soo fa demee sa yaram daw sa boo xam ne tey jii nii amul Afrique de l'Ouest mu ma ma piscine piscine boo xam ne maa ngi ditaani ay ay ay ay terrain académie yoo xam ne yu doy waar ay centre commercial yoo xam ne kenn mus koo gis ay projets yoo xam ne ay ay banque ay projets yu yoo xam ne tey jii da ngay dem si dëkk Afrique yi gën a mag si nga koy gis wala sax ay Dubaay nga koy gis mu ñëw réaliser ko ba nga xam ne tey mu ne ko ne pare na ba président Macky Sall moom moo ko moom moo ko war a inauguré kooku lu tax mu ñëw si wàllu sport Kaolack dëkk bi dellu ginnaaw si président Baye def loo xam ne kenn mësu koo def si àdduna fekkee équipe bi jël ko nga nga jël nga jël ko si nawetaan yéeg yéegal ko division nationale jël coupe bi

parce que dañoo bëggoon mu may ñu ay cent mille mille pour ñu jëm jëli ay mercenaires loolu nag ay yooyu. jël benn néeg président Baye ne leen def loolu de. Mhm. dafa dafa lu dafa généreux. 25 mhm. jours di leen fay weer bu nekk fukki junne ak juróom jël leen bus jëlal bus jox leen logement deux ans la waxoon ak mu yóbbu ñu ba quatre ans. Mhm. c'est l'équipe bi yëg. kuy taxaw di wax ne président Baye dafa dugg jamono da fekk wax ak te ba léegi bàyyi mu fay dugal loxom dafa nekkoon si ay projet taxaw di concentré si ay projet projet yooyu noonu su antoo dina jàppalaat équipe bi dina dugalaat loxom si équipe bi. justement équipe boobu noonu fu mu toll jamono ji. waaw équipe équipe boobu noonu fu mu toll instant ñu ngi compétir tey dañuy fubal sax tey. Mhm. dañuy fubal ak Kaffrine ñoo jël ñoo jël troisième seen pool. Mhm. équipe bi mu ngi mu ngi dem ñu ngi góorgóorlu équipe baa ngi dem. mais est-ce que moyens yi ñu ngi fii. waaw non xam nga xam nga xam nga moyens yi xam nga affaire moyen président Baye Ciss moo nekkoon suñu moyen. su taxawee concentré wu si loo xam ne tey jii nii kaw la ñëpp ci war a gis seen bopp ñu duñ xool suñu intérêt personnel dañ koy bàyyi mu concentré si loo xam ne tey kaw la dañ na del si waat moo tax ñu bëri loo moomut waaw wala loo xam ne tey jii président Baye Ciss hmm. boo xam ne moom ñëpp ko bokk hmm. waaye tout puissant jamono muy club civil bi président Baye Ciss moo ko créé tuddee ko tout puissant jamono. créé ko. di mhm. si def mooy amul benn fifteen boo xam ne nit fekk na ko si. Mhm. mooy fay jour yi moo leen jox ñu lekk moo leen jox ñu naan kon kooku ba lan ban àq moo ko def. soo àq ko da ngay àq loo xam ne da nga ko bokk mhm. wala loo xam ne yow nit ñee ko créé ndoo kon tey benn entreprise xam ne yéen a ko bokk créé. ñu waaye loo xam ne yaa ko créé kenn fekk la si si ñu àdduna loolu àq moo amu fa. nit ñi dañuy wax ay wax yoo xam ne xamuñu ko par exemple ay bu mu ne ci tax kaw la ñu gën a jege Macky Sall ñëpp nekk si dëkk bi dañoo jafu taxaw kut au kut bu ko taxaw bu koo xeex tey ñoom ñëpp am nañ gàcce ndax wax dëgg nekk yàlla ñii daal nañ si politique ñii ñu ngi si ay yeneen wax yoo xam ne amul benn njëriñ président Baye si yàlla mu ngi koy dimbale ak ndimbalu ndayam ak barke Baye ak barke Baye Niass ci espoir boobu la ñuy des mu mel ne nday ji réew bokku mel bi nga xam ne moo fi jóge woon di Mariama Sarr hmm. tegoon na fi stade municipal hmm. ki nga xam ne moo di ki nga wax ne moo jàppale muy sëriñ bu ñëw arrêté travaux yooyu. Mhm. ba sax mouvement nag ay waxoon dañuy génn def marche. Mhm. noo ko gisee loolu. waaw xam nga mu mouvement yooyu noonu. Mhm. seen seen ay xalaat lañ am. président sëriñ boobu xalaatam la am te président sëriñ boobu. xalaatam. mooy xalaat boo xam ne tey di askan bee ko fal. su ko askan bi falee. mu ñëw. bëgg lii da koy bàyyi mu liggéey bàyyi ko mu réaliser waaye ñoom. tey jii nii ñi nga xam ne tey jii ñoom ñoo nekk si wàllu wàllu nawetaan am na lu bëri lu leen nit ñi mën a ngaañ ko man ASC laa yore bon sport ak culture wax. Mhm. ASC yi nekk Kaolack ñoom si boppam ñoo war a njëkk a xoolaat seen bopp balaa ñoo wax waxi sëriñ boobu. parce si boppam si gis koo xam ne. Mhm. lu mu war def mu koy def bu njëkk nag bu njëkk ASC yi. Mhm. dañuy def ay cours de vacances dimbale xale yi nga xam ne tey jii dina baax forcé si si éducation bi dem benn école def de vacances koñ bi yëpp génn. ASC dañuy def ay set setal ay ay ASC dañuy def ay volet culture ak yeneen ak yeneen yu bëri yoo xam ne ay ASC day am njëriñ fi nga dëkk si localité bi nga nekk waaye ASC yi amul benn njëriñ xam lu mu xam lekk xaalis ak ŋàññi ak wax ñu ñëw li ñëw présidence lañ moom su ñëwee fekk ñu ñu am lu benn projet bu mu entamé moom mu gis ne projet bu mu bëgg a andi moo gën dañ ko war a bàyyi mu liggéey ah mais loolu tamit yaakaar naa stade bi am na njëriñ ci ci ci parce que ah. day tax ñu ñu noppal stade la leen géey non stade bi ñàkkul njëriñ waaye waaye présidence lañ moom dàq ko parce que parce que tey jii tey jii mën na ñëw fekk fi projet boobu. Hmm? mu ñëw nag projet bii nii kat plan ak projet bii kat laa laa bëgg ko tàmbale mën na ko tàmbale boobu am réussite. Hmm, ba loolu pare ba mu am réussite mu tàmbale leneen yàgg seen bopp waaye nekkul moom da nga ko war a fal. population bi ñenn ñi nga xam ne ay kat nen di ko di ko di ko di ko di ko manipuler di ko wan ne ko lii ngay def déedéet moom mooy ñëw xalaat ak équipe municipale ñu àndal ne man lii fekk naa fi lii waaye est ma defee lii du gën mu ànd ak def loolu loolu loolu ko population bi sant su demee ba nga xam ne tey jii nii def na benn at ñaari at ñett at ñu taxaw ñu ne ah président kat yow kat def na fi benn ak ñaari ak ñetti at lan nga fi def ak ban coppite la Kaolack am ak lan la si Kaolack gi seen ñaari weer ñetti weer taxaw su ne góos nga yàq moo la tax a jóg waaye dafa dëgg non mu baax que tey jii président Serigne boobu dem si si yi foo xam nekk fa di fa góorgóorlu

justement ñu jëm ci euh, législative yi. Mm-hmm. Serigne Boub daal di déposé candidature am moom it ne dafa war a jongante pour dem am ay toogu ca pencu ndaw réew ma. Mm-hmm. mel na ñu gis bi mu defee loolu rek ñu bari di ko bàyyi di delluwaat benn Bokk Yaakaar. Mm-hmm. ndax euh, ñu ci mel ne Ahmed Youssouf Benjelloun ñoom ñoo coalisé ci local yi. Euh, gis nga El Hadj Daniel Sow. waaw mouvement masque. Mhm. Euh, tout récemment benn élément boo xamante ni sax nommé woon nañ ko si mu nekk conseil municipal. Mhm. Euh, muy ki nga xam ne moo di Abdoulaye Gueye moom it daañu dem. Mhm. Euh, nan nga dundee loolu ak tamit par rapport ak enjeu yi ndax jàpp nga ne sëriñ bu war na cee mën a génn jamono ji. xam nga dafa am loo xam ne man si comme diggante benn. benn Zaloum maa ngi koy nuyu de passage. mu nekk bu baax diggante benn Zaloum ak président sëriñ boobu du ma siy bëgg a sori xamul tax. diggante benn ak président sëriñ bu moo ma

am na jamono yoo xam ne président Serigne Boubou sax pare wutoon sax pour dugg si si wàllu si mbiri député mhm. waaye soo gisee tey mu dugg si parce que bu ko dimbale dëkk bi moo tax pour mun a am ndëgër laay parce que am na lu bëri loo xam ne maire kese dina góorgóorlu liggéey sax waaye mu yokk si xar bi karaw di gën a tax mu am doole am dëgër laay mun a mun mun a indi kaw la mun a taxaw xeexal dëkk gars yi tax mu mu mer xam nga xam nga prés loolu loolu diggante président Macky Sall xaw ma si dara ko Macky dig lu wax loolu ay waxi yàq la rek ak waxi waxi picc ndax xam ne Abdou Ndiaye golo googu noonu maire Kër Mbaba ndax xam ne daa xeesal ba yàq góor bi xeesal ñàkk personnalité ñàkk fay na xam àdduna lu mu am si àdduna xas ko may fi la taxaw di xas Mariama Sarr ak ñoom Mimi Touré su taxee ay nit ngemb ko ruux ko muy taxaw di wax wax naa ko si ay vidéo na ko Abdou Ndiaye hmm? bàyyi président Serigne boobu bi ngay wax di ko ŋàññe ndax président Serigne boobu moom mun sa bàyyi baara bu xool lu ba baara mbuub def ak lu sa bàyyi def hmm? ma ne ko yow mii di ŋàññ président Serigne boobu yow président Serigne boobu moo la mun xool lu président ak si Afrique ak si Ndakaaru ak feneen ak feneen yaa yow li nga def ah, mën na ko do non moyen xam ko moyen ku me kalaamel yàlla affaire yi moyen mm-hmm. affaire yi moyen yàlla la kon nit kon nit ki ku la jiitu da koy ooye da koy mm. kooku nekk nekk koo xam ne exemple la Afrique nekk ko présidence liñ boobu politique la ko ku si dugg am lu bëri loo xam ne sax doo ko bañ waaw ah, waaye waaw moo tax tey politique dafa nag politique la ko nit di yabee waaye ku sëriñ boobu kese kese kese nii rek Abdou du wax sëriñ boobu di wax. ah mais Abdou li muy laaj. ci biir kër de ville bi. waaw kon lu muy laaj moom tey jii biir kër de ville. waaw tey kër de ville moo defal bilan boppam. Hmm. parce que président sëriñ boobu fu fu mu jëlee kër de ville ak fu mu ko yóbbu. ku ne xam ne rek yóbbu fekk na ko benn yóbbu ko fukk. ah mais hmm. lu ma wax yaa ko gën a xam. Hmm. politiciens yi lu nekkee moo gën a yéexu sëriñ boobu nekkee te kaw la ko waaye yéex na ne yeewu. président

buñ buñ jógee local yi ñoo ñoo décroché feneen ñëw bi ñëw biir ànd nawle te te déggoo ko ko wax. déggoo ñu média médiatiser ko. mbiri politique mooy ay arrêt la ñii dañuy dem sa arrêt bi ñuy wàcc ñuy yéeg politique loolu moo moo demee noonu tey jii nii kooku dem muy Abdoulaye Gueye muy koo xam ne jeune la ku nii respecté lu tax mu dem loolu moom moo ko xam. Mm-hmm. keneen lu tax mu ñëw ànd ak seen dugub loolu moom moo ko xam jóge feneen. Mm-hmm. te digg tojul tey ku mel ne kooku ay conférence des leaders ay nangam dañ ne soo dama ko respecté trop man aw ma dara loo xam ne mun naa ko wax président Bengelloune dama ko respecté dama koy ñaanal li nga xam ne moom lañ ko dënk am lu koy xaar lu bëri hôpital bii def naa ñëw naa fa def naa fa ay sorti hôpital El Hadj Ibrahima soo fa duggee si yaram dafay daw médecins yi képp ku si qualifié nga ay yaa ngi xamat si clinique yi mm-hmm. askan bi di sonn population bi faj faj faj boo xam ne amul ku si feebar sa bakkan si xottu gerte hôpital bi ñu mu nekk mu nekk sabati golo kenn xamul lu muy nirool mu muy war ko ñëw redressé ko stade Kaolack yow xam nga lu may wax mhm. stade Kaolack moom stade bu gën a yées Sénégal

Kaolack gis nañ seen bopp loolu la nit ñi di xaar mais Kaolack si boppam ñoo mun politique bu salte boo xam ne fu ñu toll rek ñu ngi si ay problème yoo xam ne ay xoolee yi nga xam ne tey jii seen jikko mooy waxi politique rek ñu jël exemple si ñi ne si dëkk bi ñoo xam ne politique wuñ waxul ay nag bokkuñ mhm. mhm. jumaa boo xam ne valeur de 80 millions mhm. nekk jeune nekk si dëkk bi créé créé créé entreprise am xale yi dafa liggéey mu leen di fay weer ñi mu leen di fay journée ku mel ni ay Gora Gueye dëcc bii nii dëcc bii nii na xam ne dëcc bu nekk préfecture bii nii yoon yoon mouvement dëcc ndaw dëcc ndaw man moom bokkun bokkun bokkun bokkun sa gis-gis bokkun pol waaye man gis naa ay réalisation yoo xam ne dëcc def na ko ay gaawaan di indi ay courant di dem si ay ay pépinière bongale di financé ay femmes dëcc ñaata groupement femmes la yoo xam ne def na ko biir Kaolack di dimbali dëkk bi ay ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi fi ay ñoom Moussa Diama entreprise la yor si biir dëkk bi te yuuxuwuñ sabaruñ dëgguñ defuñ dara ñu ngi góorgóorlu nekk si dëkk bi di ko jëmbal waaye politiciens yi xoj ñu mel ni ay dëmm si président yi ñëw kenn dootuñ nelawati ñuy jël ñuy jël fii côté bi zalone yow seen ay pancarte teg fa xale yi xale yi kusi kusi yoptation soo demee nga dee tooxal nit ñi sonnal nit ñi ba nga xam ne sa lépp ngir seen ay propre intérêt ku sa jabar amu soo amee ñeenti weer dem na Amérique tey jii ku fi feebar tuuti seen yaay ak seen i jabar yi ku fi feebar ñëw bu la Maroc wala wala Canada wala ñëw bu la France ah askan Kaolack bu di sonn bay bëgg a dee ñu gis ku ñu bëgg a ñëw pour bëgg ñu dimbale ñu bëgg a taxaw def seen benn seen seen seen commune de intoxication boo xam ne fu sëriñ dugg góos ñu tax ñu dugg fa góos yàq fu Baye Ciss dugg góos taxaw bu def ay projet ñu le président Baye Ciss nangam def benn groupe boo xam ne ñoom ñoom rek la te lu nan bi def ñoom Awa Gueye ñooñu tey jii nii créé ay calebasse l'émergence ay Mimi Touré ay Nafissatou Diop ay Souleymane Ndéné yow mii nekk journaliste ak ñii di vidéo xam ne ñoom defuñ Kaolack tous duutal sa baaraam yow kii nga dëkk si dëkk bi nga ne ma nga ne ma lii la fi Mimi Touré wala Souleymane Ndéné def wala diw Awa wala kenn lii duutal fa sa baaraam wax ma ko wax naa lu Ibou Bamba def wax naa lu Baye Ciss wax naa lu Serigne Mboup def wax ma lii la fi wala Awa wala diw ak diw lu nekk si ron président Macky Sall di mos fi may jeexalee samay kii mooy euh, kaddu askan bi yaa ngi koy wax sànq nga ne am nga ci quartier bu nekk presque ku la fa représenté mhm. ndax loolu day signifier daam da am ambition. pour wàllu politique maanaam dugg ci politique ngir am ci ay ndombo. xam nga xam nga yow man lu tax euh, am na Kaolack am na ñu bëri ñoo man Kaolack amul ku ma xamoon. Mm-hmm. man man wax ma politique sax damaa damaa naan politique. Mm-hmm. man bu may nekk xale laa nekk responsable bu AFP. Mm-hmm. bu ma su bu ma damay nuyu de passage Babacar Soxna. sama frère na xam ne mosu Moussa Niass kooku ndaw woon bu ñu war a bàyyi xel la kaw. Babacar Sadio waaw ko yaa ngi koy bàyyi xel mu nekk ndaw koo xam ne ku am personnalité ku am fulla koo xam ne avenir dëkk bi la. koo xam ne ku social ku baax kooku man AFP la mu formé mu nekk AFP nekk fa ndaw di fa nekk fa nekk fa ak ñoom mooy nuyu ma Diaw Sarr di de passage ñoo xam ñoo si AFP ma nekk fa. bu ma nekk AFP mu njaay ma am relation ak Idrissa Seck. di ko politigal ñu ne ko benn booy lañ gis la koo xam ne il faut que ñu récupérer ko mu ñëw wax ak man bu mu waxee ak ma ne ko ah man kat maa ngi AFP te am na responsabilité bu bëri xam jox na ma ko ma dem tàggu Khoureysi papa Khoureysi maa ma dem tàggu ko mu ñaanal ma mu ànd ak mu ñaanal ñu nekk ñu nekk ñu nekk réew mi kañu bu keroog bu ñu def relation FP ak ak ak réew mi seen maamu man ak Moundiaye ak Baye Maamu ak Amar ñoo bokk añ hmm. ma nekk fa man maa ko créé suñu créé laa bokk ñu créé Rahma ñu def meeting bu mag boobu noonu mooy fii seen bi nekk. ci ginnaaw stade bi. ñu créé Rahma nekk fa nekk fa man ak moom ñu nekk fa di liggéey di liggéey liggéey ba bàyyi si ñëw ñu ñu séq wàllu sport man ak moom ñu nekk fa ba bàyyi si créé mouvement CAR. mouvement si man mi ñu ko créé laa bokk. nga bàyyi Rahma dem ci CAR. non du du du bàyyi Rahma de Rahma. mu bàyyi si football moo ñu boole moo tax yow da ngay fàtte wax ma ko léegi. bàyyi si bu ñu ñëw bàyyi si man moom ñoo dëkk. rakkam lay àndal rakkam Abou Diop. man ngi koy nuyu. moom lay àndal bàyyi siis football moo ñu boole mu ñëw jël jamono. defuñu lu ñu kenn defalut ñu seq mu commencé indi ay projet loolu moo indi sama lëkk ak moom ñenn ñi fiir ñi nga xam ne tey jii Kaolack Kaolack sax mu neex ñoo leen. parce que képp koo xam ne bëgg nga Kaolack war naa bëgg bàyyi siis. parce que parce que deful lu ko deful feneen Kaolack la ñëw investir ñu indi ay fiiraange ay yoo xam ne bi di politique. man kenn moomu ma man tënkuwuma si kenn. waaw ñu dellusiwaat ci question bi da am ambition politique ci wax na la mhm. tey mhm. ne si dëkk bi di politique man ak benn. Mhm. man dama am CV boo xam ne Kaolack mu neex la amul jeune bu ko fa am ñenn sama association bokk doole si waat bi boo xam ne dama fi àndoon ak ay sama nit ñu baax ñoo xam ne maa àndoon sama koñ fu laa commencé. te set setal sama association créé waa GIE ànd si xoli Saalum di dem tey jii nii créé moom mouvement lu ma ñor mooy Kaolack ànd si xoli Saalum ak ah kii nii kàddu askan boobu ñu taxawal dara tax koo jóg ak lu askan bi représentant yooyu noonu nekk fa ku si nekk am na sensibilité boo bokk. man am naa ay sama ay sama représentant si yenn koñ yoo xam bokk yoo xam ñu fa ay nit Mariama Sarr ne am naa sama ñoo xam ne ñu ñu ngi yenn koñ yi ay Ndimbu Ndiaye ndax ma nekk. dama ci ne tey ñu ngi si koñ foofu nekk sama ambassadeur lépp lu ñu jànkonteel ay problème yoo xam ne am nañ dëkk ñu jël ko envoyé ko ko. Mm-hmm. ñu xool naka la ñuy def pour mooy maire dëkk bi sax yenn yenn yenn appareil politique yi sax ñoo xam lu a ñor mooy foo mun ci bokk tey jii jiitalal Kaolack. alal soo xoolee bu tilim nga ñu fii kat man fu ma su ma jógee fii léegi dama damay dem mën na waa ba si géey daf ma oo na ma na ma loolu dama bëgg nga ñëw fii kat ñu xool fii ba fii tilim nga doy na waa man su ngeen ko si émission bi damay ñëw ma jógee fii foofu laa jëm directement te yooyu yëpp ay mbir yoo xam ne loolu moo tax ñu kàddu askan bi waaye ñun ñu ngi si gën a président sëriñ boobu di ko jàppale président sëriñ boobu tamit yomb la ñu liggéey bi am am directeur cabinet boo xam ne tey liggéey rek la xam muy Abdoulaye Gueye Abdoulaye Gueye day xëy soo bu ngoon jot di liggéey di recevoir di defar di jël àllam di def di jàppale sëriñ boobu ak yeneen rek mooy mooy directeur cabinet maire di góorgóorlu ay ñoom oble nekk ndax ñoo waroon nekk député diaspora bi Samba Tall di def di dem si ay ay fu ne si ah, si Europe di jàppale président sëriñ boobu loolu yëpp pour intérêt Kaolack nan bàyyi yàq bi te jiital Kaolack te liggéey dëkk bi ndax ëllëg suñu fu jógee sax ñu xam ne lii ñu ñoo ñu ñoo ko taxawaloon suñ suñu doom yi feesuñu am na ñoo xam ne tey jii nii dañoo lox sax seen njaboot yi ndax yàq nañ fi nekkee ba génn àdduna seen seen seen njaboot yi dese gàcce ñun nag bëgguñ bokk si loolu luñ bëgg a bokk mooy nekk ay ndaw yoo xam ne dañuy ne si dëkk bi di góorgóorlu di liggéey na xam ne ëllëg suñ fi jógee ñu xam ñu xam ne lii suñ ay suñ papa ñoo fi taxawaloon lii te Kaolack indépendance bii mu am ëllëg histoire daf ñuy bind dañuy wax ne yéen a fi taxaw ñu yàqoon dëkk bi waaye yéen a taxaw bokk suñu defar dëkk bi kàddu yu mujj yi lañuy jëloon ci waxtu jeex na waaw kàddu yu mujj rek mooy damay gërëm ñu bëree bëri parce que tey man mun ne wax ne man maay Kaolack damay gërëm Ibou Bambara wax naa ko léegi dama koy gërëm bu baax parce que ku nii jër a gërëm ku jër gërëm la ndax ku nit ku social la ku baax la ku am njëriñ la di nuyu sama grand Assane Diop Ndakaaru nga xam ne tey royukaay la xale yi am jom ñëpp si moom lañ ndi guy gu daar la xale yëpp si moom lañ jàng yi di nuyu ki nga xam ne tey mooy Moussa Diama Mbaye nit ku am njëriñ si dëkk bi la nit ku baax la Babacar Soxna nag seet bi maa ngi koy nuyu bu baax jeune la nit ku baax la du nuyu Dora gay Dora gay maa ngi koy nuyu du nuyuwaat Dëcce Dëcce na ko Kaolack bàyyi xel Dëcce bi nekk préfecture mm-hmm. na ko Kaolack bàyyi xel xam nga Kaolack lu mu xam ku yor ay 4-4 rangale ak nit koo xam ne dafa bëri wax loo def dugg si ñi ñi ñuy ñëw média bi nangam ak sàngam waaye Dëcce lu muy def si lu baax te du ko wax dafa bëri man lu ma dama damaa xam lu may wax bu baax mm-hmm. ndax man maay Kaolack Dëcce ñu ngi koy gërëm bu baax ñi nga xam ne ñi nga xam ne mooy sama waa koñ maa leen di gërëm waa jamono yi yàlla ko yàlla saafara yàlla ko yàlla taxaw dimbali ko ba mu ñëwaat parce que ku am jëriñ si dëkk bi la nekk suma koñ maa koy gërëm di gërëm di gërëmaat décce di gërëm wax dëgg neex yàlla mooy Ahmed Youssouf maa ngi koy gërëm xale la waaye wax dëgg neex yàlla am na ambition pour liggéey ñu jàppale ko parce que ñun ñëpp Kaolack nañ dëkk di wax ne ñi nga xam tamit ñooy politique politiciens yi bon yi yàqkat yi gole yi ngir yàlla yonent bi bu la ñu jaxasal président Serigne Mboup ak président muy bloqué yenn projet yi jàppe ko comme comme adversaire politique yàqal ñu yàqal Kaolack yaatal leen seen xol yi ngeen gisal dëkk bi dimbale dëkk bi dëkk bi Kaolack sonn leen ba si kanam yàlla di gën a gërëm ñoom Mathias Diop Kara nga xam ne tey UGC tey balaa ñoo ñëw di di góorgóorlu si mbalit mi moo fi nekkoon si dëkk bi di góorgóorlu Kara Diop TV mooy Kara Deewo mooy nekkoon si mbalit mi fii Kara ñu ngi koy gërëm di ko sant di ko ñaanal jàmm di ko di ñaan yàlla yàlla yàlla taxaw di gërëm sama président Babou Faye ñoom Ibou Diawara ñoom Badara Sarr ñoom Ami Fall su ma tey jii su ma doon lim fii su ma fi jógee parce que man maay Kaolack mhm. ma ngi gërëm ñëpp di gërëm président Serigne boobu di la wax ne président amul ragal amul ragal de ay gaynde nga àndal ñu ngi lay gërëm di la sant amul ragal amul ragal góorgóorlu liggéeyal ñuy wax bàyyi leen ñu wax góorgóorlu Kaolack waaye ñu ngi lay xaar Kaolack waaye lu ñu lay xaaral mooy si li nga nekk gën a la pousse gën a góorgóorlu Kaolack jëm si kanam yàlla dimbali ñu taxawuñu Kaolack info nag wax dëgg neex yàlla aw ma seen fay hmm. ñu gis ne liggéey bi ngeen def si dëkk bi noonu la affaire bu ñu ko repriser comme ñenn ñi nga xam ne tey jii dañu am fu ñuy ab fu ñu far hmm. na leen Kaolack ñor hmm. bu leen kenn jël taf leen si boppam di leen ñaanam ak sàngam liggéey leen liggéey comme ni ngeen ko ko commencé nii continuer leen noonu di ñaan yàlla yàlla taxaw ñu dimbale ñu jërë ngeen jëf jërëjëf Adama Diouf bëggee naa la jërëjëf euh, Aliou bi yow tamit amoon nañu plaisir dalal la si suñu plateau mu mel ne nag ñi rek la ñu ànd ak yéen saa su ne fii ci Kaolack Info TV yaakaar naa ne déglu ngeen li nga xamante ni moo di waxtaan bi te dinañ ci tiré ay enseignement tamit ba li nga xamante ne moo di suñu Kaolack euh, ca kanam euh, di jaajëfalaat bu baax a équipe technique bi Moussa Sall ak équipe yëpp ñu leen di gërëm bu baax di gëm gërëm tamit équipe rédaction bi di leen jox nag di daje ba beneen yoon ci beneen invité de la rédaction jaajëf